kilifaam Cheikh Saliou Mbacké mi fi toogal Cheikh Ahmadou Bamba tey. gannaaw nuyoo bi euh, nuyoo bi Cheikh ngi ciy jiital délégation bi nga xam ne ñoo fi ñëw teewal fi président Abdoulaye Wade te ministre général Amadou Niang jiite ko mi ngi nuyu mboolem euh, mission diplomatique yi fi teew ñu ngi nuyu mboolem ministre yi nga xam ne nii ñoo gunge euh, ministre de l'intérieur ak mboolem këri diine yi nga xam ne ni teew nañ fi te diine ji tax ñu teew fi di leen yóbbante di leen yóbbante nuyoon ci kilifa réew mi président lay Wade euh, di leen jot li ci turu Serigne Saliou ngërëmam ci seenu teewaay ci bis bi di leen yóbbante yëpp cant ak ngërëm ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne euh, président lay Wade ak jëwrinam yi muy yi koy jàppale taxaw nañ ci ci lépp luy doxal bis bi ba ba mu mel ni mu war a mel euh, nee na it ngi leen di ñaanal ci yàlla gannaaw cant gi ak ngërëm loolu mu taxawu leen jàppale leen ba lépp lu baax yi lu ngeen yéene ci réew mi suñu borom subhaanahu sottal ko te mu ànd ak njiglaay waaw mu ñuy fàttali rek li tax yàlla binduñu muy wama xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun daf ñu bind ngir ñu di ko jaamu nee na ñu gën a góorlu ci di ko jaamu euh, gannaaw loolu yéen bokki jullit yi yi nga xam ne diine moonu boole sëriñ bi nee na mi ngi soññ boppam bi mu soññ ñu taxaw bu baax ci jëfe santaane suñu borom yi bu moytu bu baax tereem yi tan boole suñu bopp suñuy xol suñuy xalaat ak suñu ay yéene ba lépp nekk benn ñu jëme ko nag ci lépp luy euh, yéwénal suñu mbiri àdduna ak sunu mbiri àllaaxira te lépp ñu jaar ko ci ni ko yàlla waxee te mooy wa'tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan yàlla dafa wax ne ñu euh, bennoo nekk benn tey dimbalante te ci lu baax tey bañ a dimbalante ci lépp luy waral ab bàkkaar wala ak noonoo ñun taalibe yi itam nag sëriñ bi nee na nanu maase tax ci xam ne ak taalibe daal li ci jiitu mooy e, lu koy tey te te di ko maye te di ko rafetal mooy farlu ci ndigal yàlla yi tey moytu tere yi ndax sëriñ bi dafa wax ne isil muridu laa yuridu abada gayra rida rahmaani haysu qasada nee na ak taalibe e, li mu war a def muy yitteem mooy lépp lu koy may ngërëmul yàlla nee na kon ñu gën a góorlu ci loolu góor góorgóorlu ci liggéey te di ko sellal tey dimbalante tey suturaalante nee na yàlla na nu yàlla boole dimbale te saxal ñu ci ak bëggam lii mooy kàddu yi mu ne woon ñu jottali leen ko ci turu Cheikh Saliou Mbacke. nda ñëpp tàllal ñu def ñaan. màggal gi dafay wane rek doole Cheikh Ahmat Bamba doole gi mooy at mu nekk day yokk ba ñëpp jàpp nañ ni màggal gi amul màggal goo xam ni mën na ko ëpp si wàllu mbooloo mi mu dajale màggal ko ëpp si wàllu xéewal yi nga xam ne daf fi am kon lanu xamle woon ni Sëriñ Tuubaa amul ay tànk gannaaw ay tànk kanam la am feeñ na Cheikh Saalix Mbàkke bëgg ko mooy yërmande jaam yi yërmande weesuwul la Cheikh Ahmad Bamba defoon ña ko sonnaloon teqale ka li mu gën bëgg teqale ka ak Touba teqale ka ak taalibe yi teqale ka ay xasaay itam bëgg sax jaamu am ñu farka ba mu ñëwee ba teg tànkam Sénégal lan la jëkk def jéggal naa leen bis bi nag ndigal yi nga xam ni moom la ci sëriñ bi di yeesal saa su ne war nañ koy fàttaliku te di ko jàpp muy fukki fan ak juróom-ñett ci safar buñ ko waxee bu di fukki fan ak juróom-ñaar jëm fukki fan ak juróom-ñett sëriñ bi fàttali na ni mooy dëgg-dëgg guddi màggal bi ñu dundal ko ci jàng alxuraan jàng xasida waaye fonkeelu bis bi nag fi mu war a àgg mooy kàddu yi nga xam ni sëriñ Tuubaa wax na ko sëriñ Moustapha Diatara sëriñ bi dafa wax ne bis boobu de mooy bis bi nga xam ne mooy lépp lu ma am lépp lu ngeen gis ci man ma am ko fépp fu ma egg fépp mu fu ma sunu bu teraanga juñ seen ma yor ko ci kaw suuf rek ci bis boobu la ma ko sunu borom jox kon bis boobu di bis bu rëy di bis bu mag ndax teraanga ju rëy ni li mu yor ak fi ko yàlla yóbbu ak ni mu toll mu ne li ma am lépp nag ci bis boobu ak ci waxtu boobu kon boobu bis day daa doon bis boo xam ne yematul benn bis nee nañu daana waxal boppam ni sama bis bii de am nawet bu tooy la lu ci waay jii rek dina sax nawet bu tooyee ngi nii de lu waay ji itam bëgg a sax bu sama bis bii dikkatee nangu ci ji noonu la ko sëriñ bi daan waxee moom ci boppam ma ngi di ko nettali sant le sëriñ Touba yàlla ci li ko defal ci ay xéewal loolu mooy li ñu dajale fii ci tubaa ci fukki fan ak juróom-ñett ci safar bis bi nag màggalu tubaa kenn du ci doyal kenn du ci doyal ndax xéewal yu làmbo kenn du ci doyal ndax njariñ yi ci nekk kenn du ci doyal itam ngir yërmande gi nga xam ne suñu borom def na ko ci bis bi daal benn baat ci la tënku suñu reporter yi mboolem ñuy laaj maase nañ ci tënku benn baat mooy ji màggal mosu fee am ji màggal màggalu cant la ji màggal màggalu ngërëm la amuñu benn gàllankoor lépp jëm la sax sant yàlla rek lan war a def mën nu koo sant ba matale ko nag. dama ne bés bii luñ ci def def nañ ko ndax lépp luñ ci def daal te fii ñëw suñ ko delloo delloowaat na ko. ñëpp bokk nañ mbay ak baay daal ñu ko sëñ bi digalee rek ñoo ngi sant bu baax daal ci ñëw gi. dara du fi manqué dara doo bale doo raxas palaat doo raxas kuddu doo doo ni damaa mar du ma naan doo ni damaa bëgg sangu sanguwuma doo ni damaa bëgg a lekk lekkuma doo ni ndékkee ma tardé doo ni aña ma tardé lépp a ngi fi. si yàlla nangul nag suñu jëf yi waaw lu ñu si jëf ngir yàlla rek yàlla na ko yàlla nangul si. Ah,